jamonoy confinement bi depuis fin mars dem suma dëkk ba am trois quatre jours une semaine ñibbisi far confinement bi fekk ma fa couvre-feu fekk ma fa benn bés rek laa gis appel en absence suma téléphone wootee ca numéro ba am kenn ku ma wuyu ko góor doon ma wooye beneen tour ma ne ko sëñ bi de da ngaa juum kon de sëñ bi maa ngi jéggalu baal ma madame bayra crochet mon ma ah waaw ku ndegam yow léegi yalla def na nga ma dama bëggon rek nga jappal ma ndax fi ne ni dama mbé ma ngi ci bir all bi ni ndax dañ ma yónni won matériel construction ma ñëw ba ci all bi di wara a ma pan nak suma crédit jeex mo taxone ma don lambatu suma xarit bini, ni ndegam jot naa la nak te man yoratuma crédit bëgg na rek nga jappalé ma wol ma suma kilifa bi ma yoni xamal ko ne de guddé gi de dama guddé ci all guddé gi dara taxu waral ko lu dul paan booba laa ko ne jox ma numéro ba mu jox ma numéro kilifaam googu muy wax ci laa woo ni kilifa ga kooku ne ko de am na sa taalibe de boo xam ne nee na danga koy yónni woon matériel construction waaye dafa paan ba muy dellu si looloo tax ba léegi gisoo ko ah góor gi rafetlu li ma def ma ne ko waaw man de bokk jullit rek laa doon jàppale pare naa ca waaw ñu toog ab diir góor gi ma ba léegi noonu geste boobu nga def keroog daal wax dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu lool te dafa niru na ne ku jiw ku gëm yàlla nga ndax lii nga def ku gëm yàlla rek koy def sa mbokk jullit bu nekkee ci problème daal da ngay da koy mën a jàppale rek ñu def deux semaines mu woo ma di ma nemmeeku di waxtaan ak man ndëgëm nee ne kilifa diine la dafa yor ay daara ci dëkk ba mu nekk baat ba buy wax itam da ngay sentir ci moom benn genre yiw peena ma léegi daal yow wax dëgg yàlla def naa la ni ma def sama doom yi léeg-léeg mu woo ma ñu saafante mu jox ma ay ñaan euh, jox ma ay ay tegtal jox ma ay ndigal ay conseil kon loolu def nañ ko daanaka ci confinement bi yëpp léeg-léeg na ma ñaari yoon di ma digal ay sarax ay sondel ak ay yooyu noonu sarax yu ndaw yoo xam ne jafewul pour ñu dindi ko su ko defee ma génnee ko rek benn jour mu woo ma ne ma ah yow de xam naa ne maa ngi lay defal ñaa waajal ay ñaan yoo xam ne daal wax dëgg yàlla mu soobee yàlla daal naa la ko defal sa ngir sa liggéey gën a mën a jàppandi ma ne ko ah waaw ñaan de kenn du ko bañ sama papa ñi lever confinement bi man ma ñibbisi ñëw Dakar. ci la ma wo benn bés ne ma ah man de doom man de loolu ma la doon wax ci ñaan yëpp li ma la war a defal yëpp defal naa la ko léegi moom lépp yemb na pare na ndax naa la yónnee ndaw mooy suma taalibe bi ma gën a wóolu moom laay yónni mu indi la yi ma la defal ci ay ñaan waa ji benn jour mu woo ma ne ma waajaa ngi si yoon bi waa ji yegsee itam euh, ma dalal ko mu ko dalalee mu woo góor gi góor gi ne ma waa kay kooku lum la jox rek lum la tegtal rek loolu la waa ji jox ma benn buteelu saafara ne ma bii dem moom ngir njaboot ji la kaaraan ngee njaboot ji ndax njaboot dafay aar nangam nangam mu ne ma beneen bi nag da ngay ànd moom am na fu ko war a sangoo ndax fu am ndox nga ko war a sangoo ñu dem ba booru eggu benn baraag ñu daal di def loolu li wax. bañ sàngatoo ba paré nak ca la ma woon ay mbir ba légui suma bët gisul sax lu bari ñu ne ma lii de saaku la ay ay ay ay ki ya ci nek ay bagage yo xam yi de ngay sol sa njabot di amna na ci kenn ko xam mom wax dëgg yalla mo ngi ci yoon yoonu tekki moy sa taaw wi kooku tam amna lo loo wutal nañ ko ci moy bu muy faral di sol ak mbaxana bi lolu mom dina tax ay mbiram ñam ma leen wax baax na léegi nañ ci jote ci lañ ma commencé nag ma léegi li pour nga jot si il faut nga limal man ni ma deux millions xawma lan lan lan ma ne ah kon de nekkatul sarax xanaa ci la andi say waa ji guna ga ñu ñëw ba ci kër ga bu ñëwee ci kër ga mu ne ma waa man de léegi comme ndëgam damaa ñëw rek pour gàtt ay fan yu gàtt rek laa ñëw nag léegi bëgg naa daal balaa ma ñibbi rek ma am ku ma seet sama mbokk bu ma seet fii ca wet ga su ma demee mën naa del si léegi waaye bu dee damaa nar fanaan rek naa la woo booba laa gëj a gis waa waaye ay woote rek lay jot nag nanga envoyé ci numéro bi Orange Money montant sangam waaye saa ñu ma waxee montant sangam rek damay daal di tàggoog sago daal il faut que montant bi ma dem wuti ko dama koy wuti nu ma koy wutee damay dem di lebe rek si ñu ma xam ñi ma yaakaar leb te bu ma demee dama leen naan daal wax dëgg yàlla am na xaalis bu may xaarandi waaye dama war a dugal montant sangam waaw waaw te ñi ma ñi ma wóolu dong laay seeti ñoo xam ne wax dëgg yàlla ils ont confiance en moi ndax xam nañ ma xamuñ xamewuñ ma ay mbiri caaxaan su ko defee ñu jox ma waaw ci noonu daal lañ nekkee man rek chaque deux jours trois jours ñu woo ma ne ma dugalal ñu montant sangam fu ko waxee rek damay daal di jóg nag ñàkk caaxaan. waaw loolu daal moom ma indil ba tey ji au finish man jour ba may toog bay xëmmale ko bay mën a jëlaat conscience boobu fekk na moom trois millions et quelques dugg na heure boobu nag laa doog a rendre compte man mii maa ngi ci scandale foofu nag laa toll nii fi mu toll nii ndax ñooñu gisatuma leen ñii ma leb xaalis ñëpp ñu ngi nii taxaw léegi di ma ko te man a fonctionnaire bu ndaw laa rek boo xam ne fay trois millions nii cash yombul ci man Euh, suma notoriété mu ngi ci yàqu suma njaboot ñoom ñu ngi ci am un coup psychologique boo xam ne ndax ñoom musuñu dégg euh, seen papa ci situation yi mel noonu problème vraiment choc psychologique la ci man ndax man mii daf maa dépassé lool sax lool lool ndax itam euh, dem na porter plainte def nañu tracé nañ woon nañ ma ne ñii de dañu yore ay méthodes yoo xam ne Euh, pour atteindre leen dafay métti ndax bu ñëwee def loolu ñuy def dañuy daal di replier ci ay coin yu reculé deuxièmement seen puce yi toujours carte d'identité yi ñuy for la ñuy jël rek identifier ko euh, de troisièmement mooy seen téléphone yi c'est pas géolocalisable nag ñi nga ñi ma lebal xaalis ñooñu xam nga mënuñu toog di xaar loolu il faut mu wut solution fexe naa nag jaay bien man awma bien yoo xam ne rek war na mën a toll noonu benn terrain la jëndoon bu yàggul sax amagul un an suma dëkk moom dama ko mujj jaay pour joxe une partie suma bayir waaye loolu doyut il faut encore chercher waaw suma banque ba maa ngi sous prêt te fiñ toll ni mën guma amaat beneen rallonge kon situation bu difficile difficile difficile difficile vraiment nelaw tranquillement parce que tout le temps ñu ngi may woo euh, ba mu mel ni sax harcèlement euh, sénégalais yi partagé ko avec les sénégalais nit ñi xam ne yooyu moom am na fi aussi ndax man li ma doon njort musuma njorte ne peut-être loolu mën na ma arriver parce que bu doon plan bu gàtt dinaa ci doon mën a mais dañ ko togg togg togg ils ont pris le temps ba installer suma confiance ndax au bi maa ngi doon méfier wu mais trois mois ñu toog fa am patience boo xam ne pour installer cette confiance là am mois xëy na foofu la ñu mënee xëy na aussi saafara xew ma xaw ma ndax saafara bi ma jox aussi moo tax ba suma xel mi ëlbatiku ba lu ñu def rek damay xabtalu dem defe ko automatiquement loolu yëpp daal yàlla moo xam waaye daal li wóor ba wóor mooy arrivé na ma ba léegi mënaguma trouver solution ci équation bi waaw loolu daal laa bëgg a yeggee euh, yi daal dégg ko que ci nekk aussi am ci une expérience bàyyi ko xel incha allah